léegi sa xaalis yëpp gars yi dox na waaju ndaw jooju yëkkati na bagage yoom non ndaw bi mooy da ngaa ñu ne toll quoi da ngaa kii small gars la <laughs> te yow ak ni nga balaisé nii waaju dox sa main quoi donc moom nee na la fuuf quoi non garaawul yàlla baax na xëy na tamit aussi su ma ko kii woon du ma jik quoi waaw du ma ci quoi mais tamit aussi amul problème quoi loolu moo xam. donc euh, dem na fi ay ay kii jaabante ngeen ay dikk nangam sangam patati patata ay jaabante xam nga yooyu yëpp euh, léegi euh, seen seen seen affaire bi laalaa nii kenn xamul finalité bi mm. bon parce que récemment li ma mujjee dégg mooy. Euh, euh, parquet bi dafa ne euh, seen sa problème bi yow ak ñoom yow ak Luc ak yooyu mm-hmm. nekkul affaire pénal yëfu civil la maanaam yëfu diggante nit ak nit la mm-hmm. bon dégg naa tamit avocat Luc Nicolaï muy wax ne ñoom dinañ la porter plainte ci civil bi maanaam dinañ la clamer parce que da nga lekk seen xaar affaire kii wooyu donc yow mi nga xam ne yow yaay ndey mbili gi yow sa avocat yi certainement yaa ngi wax ñoom lan lañ la wax actuellement problème boobu fan la toll nii ci wàllu justice waaw ko nu mu la koy waxee rek xam nga déjà xam nga ñoom seen jëm boobu xam nañ ni nekkuñu si dëgg muy euh, lig muy ata xam nga xam nañ ni nekkuñu si dëgg parce que tey lig ci boppam toog nag ata ata leeral ko ne xaalis bi ko jëndee pokane ok kon tamit xam na ni tey Amazone gisul xaalis lekkul xaalis jegewul xaalis bon deuxième fois bi mooy que tey man fu ma woo dinaa ne wuyu parce que lu tax fu ma leen fu ñu ma mooy que tey man wóolu naa suma justice su dëkk mm, bu baax am naa confiance tamit aussi su ñoom bu baax mm. xam naa nit mun leen corrompre ci dara wala dara tey man dëgg ji rek laa bu ñu àtte ko parce que xam naa bu man damay gañe suma yaakaar kon tamit aussi nañu àtte ku nekk ci dëgg rek ñu ne kii moo nekk ci dëgg. à mon euh, xëy na am na plainte boo war a porté euh, atta parce que moom it euh, toog na say weccet. non suma xaalis moom dina ko génnee dafa leer damaa toog. Tyson toog mu toog ñu xam ni man dañ ma daf ma yoro suma xaalis 40 millions yu mu calculé sama combat bu mu jeexee 40 millions moo war des 40 millions yooyu mu calculé xam na ni calcul bi jaarul yoon mënu ma lekk 40 40 millions ci même pas 3 mois 2 mois. mais woon nee na 40 millions yëpp tas na ko am na yu la jox sa sa sœur rek sa jabar affaire yooyu. moom dèjà mu ngi suma set ñoo xam daf ma ko lebal ma leb ko ko ba mu toog. kon sama 40 millions fa du ma ci ma ci lu ma ci versé xaalis nan laay laale xaalis ko de xaalis boobu a jaar ah. millions yi mu calculé noonu fa la fa la jaar dugal sama xaalis euh, na xam ne jëndal ay kër affaire yooyu mu wax yëpp xam nga man xam naa ne dara amul ci paquet ay photo ay photo xam nga <laughs> en tout cas daal kër xam naa ne xam nga am na ci muy këyit kër bu mu téye suba këyit këru yaay kooku moom leer na nañu kanamu mbër mbër mooy Tyson. mooy Tyson waaw kayitu kër gi moom génne na ko won ko ko saa yu xool ko kayitu kër gi moom maa ko sama kayitu kër yaay la nee na dina ko boole ci calcul bu mu war a def suma 40 million yi. moom mooy lan mooy comme kër gi daf koy compter comme bien ci biir. waaw da koy compter kon ci xaalis 40 millions yi ci la bokk. ci la ko boole mais amul problème kon mu ko waxee bi lépp paasee. man maa moom dinañ dem ci yoon ñu demee ci mooy sama xaalis fu mu dugg dina ko génne dina ko wax pour mu leer suma nopp clairement. mais mais est-ce que mu coow lii yëpp ne am na wàññi am na lu wàññi daal ci ci ci ci say mbir. non non bon ci benn côté du mu ko gis quoi kon nu ma ko waxee rek xam nga nit moom da ngay gëm yàlla pare wóolu ko. Mm-hmm. waaw tey xam nga xëy na coow loolu bu amul woon mun nañ ma dégg ci leneen. Mm-hmm. bon munoon naa xam nga mun na ma xëy na mu am lu bët lu mu fànk. Mm-hmm. waaw mbir moom dangay xam ni tey kon mu la wax rek yàlla suñu boroom moom moo ñu sàkk xam nga moom mooy xool fu mu ko neex mu jaar lañu foofu. mais yow ragaloon leen tëdd prison parce que comme ni ma déggee euh, euh, seen avocat avocat li di ko wax nee ñu ñoom euh, lu te dafa mel ne ñoom dañu ànd ak ci côté boobu nee nañ ñoom jox nañ la seen 20 millions léegi te ñoom dañ jàpp nañ yow da nga leen escroqué 20 millions yooyu fa nga génne ko léegi bu ñu yóbboo civil est ce que ragaloo nga dem nekk mbëru waa Rebeuss di leen dafa organiser ay tournois. xanaa ñoom ñoo fay bëre. <laughs> <laughs> sooy ah, boobu dëgg moom li ñu wax rek yàlla moom boo ko seet seet ko ci dëgg. Mm-hmm. waaw moo tax affaire bi man xam nga dafa ma ko problème. saxal dal na waaw billaahi non yàlla Muhammad jaar jaar boo jaar ma jaar fu ma woo damay wuyu. Eh, mais actuellement nii yow eh, defante bi nga defante ak Luc Nicolaï nii eh, est-ce que doo dem ba ci est-ce que yaakaaroo loolu mu yàq seen relation de travail ba ba ba ëllëg. parce que dafa ma ah, lay am na benn genre haine bu dugg seen diggante quoi est ce que loolu du la freiné yow ba nga xam ne yow bu la Gaston tëggul euh, finalement day mel comme benn genre boycott moo nekk seen diggante quoi bu la bu la Gaston tëggul euh, keneen dootul tëgg ndax li xëy na mu mu découragé si yow boycott la. xam nga tey ko ni ñu ko waxee rek wërsëg nit lu mu war a lekk rek. Euh, yàlla da koy bind sa jë ñoom tey yoruñu suñu wërsëg muy Gaston muy Luc Nicolaï yoruñu suñu wërsëg suñu wërsëg yàlla suñu borom moo ko yor comprendre nga. Mm-hmm. tey dañu bokk di liggéey dam leen arrangé dañ ma arrangé parce que tey su ma nekkul woon produit tey duñ ma duñ mu ñëw tey di dox sumay combat kon tey ñafe naa ba toll fu mu war a toll tamit si làmb kon tey soo nee un deuxième la munul ñàkk soo nee Yékini nga ci teg ah, euh, Balla Gaye rek <laughs> ak Modou ñu ngi si noo exemple ma la jox ko xam nga tey waxuma sax si ñoom mais tey bu ñu ko jaaralee ci yoon rek. soo ne Yékini Eumeu Sène nga ci. pourquoi. daf ma maag sës pour bëri ak moom. ndax la yaa sës bu bëri ak moom. maa daan ñëpp ñu bëri ñëpp daan naa leen dafa mën a bëri ku ma daanu na ko wax. et puis ñaar euh, man xamoon na yow champion d'Afrique nga. si champion d'Afrique ma nekk ñaar ñoo ko ànd. maa ngi Yékini ñoo ko ànd. mais pourquoi Yékini moom ne du bëri ak man daf la xaw a xeeb yooyu wala peut-être ne bon booy bi sama bërëg moom euh, je sais pas du ma am ci millions yeeg yooyu wala je sais pas daal mu mu xool la peut-être ne kii ci kini la et tout ça. du loolu sax xam nga ku nekk sa plan carrière quoi xëy na tam aussi moom foofu noonu la gisee ni fa la war a jaar quoi mu xool fu mu war a jaar mu jaar foofu. wala xëy na fay ma ko nooy ci moom. non du loolu ñaar ñee. non àdd non bala nooyul. <laughs> <laughs> Balla Gaye du ko nooy de. <laughs> mais xam lu ma jaaxale mais mais am na benn fit boo xam ne am nga ko parce que yow laa gis ñeneen ñaar ñi muy Balla ak Modou mm. ñoom nee nañu carrément bëgguñu bëree bëree ak Yékini mm. euh, beneen waa mm. xam naa wecc di ñoo xaw a bari mu dem sëgg bëre mais Modou Lo nee euh, ma gën a soxla si Yékini mooy ay conseil am l'autre aussi Lac de Guiers également bon dégg moo comme ñu wax ay waxu Yékini yow kese yaa sañ a ñëw affronté ko directement ma te moom dafa la dafa waaf dafa dafa tefesu. waa c'est boo gisee man moom mënuma di laxatu quoi kon ni gars yi def man damay direct ci lépp lu may def mm. bon soo gisee déjà ma dëkk ko. wala ma ne tey Yékini carrément moom laay bëreel. Mm. mooy que ne dama xam ne moom rek laa fi bëri ka laay bëraatal. Mm. Amadou Ba enjeu bi moom la quoi. non Gris Bordeaux moo daan maa ko daan Balla Gaye tey moo fi daan ñëpp. Mm-hmm. maa ko daan. Lac de Guiers xam nga dama ko njoos ak bàyyi ko wuy. <laughs> <laughs> da ko njoos rek moom. waaw Lac de Guiers waroon ko ko njoos rek. <laughs> mais mais xoolal euh, Modou Lo par exemple Modou Lo je sais que parce que man waxtaan naa ak moom e je je sais que moom. moom am na topp lu ko metti ci euh, seen seen seen seen combat bi. Mm-hmm. ndax moom soxla na la trop. Ibrahima moom en fait moom ki ki gën a dégâts collatéraux dégâts moom. Mm-hmm. ci côté am la gën a diisee parce que euh, xëy na mu def euh, année blanche wala en soxla woon na la trop te ngi dox ci leneen donc. Euh, waaw xam nga man moom xam naa ni bon namm na ma yaa xam te ne ma quoi kon mu koy mën a waxee xam nga vraiment gis naa ni bëgg na bëri man trop. yow nag bëgg a man. bon yàgg naa xam ne bëgg na bëri ak man. yow nag. non man kon mu koy waxee rek làmb moom. bon ku ma yàlla wax ni Eumeu Sène war na daje ak morom moom man bon mbër la champion la tamit aussi bon soo mënoo lim ci champion yi te doo ko ci boole bon kon nu ma koy mën a waxee mooy tamit aussi xam nga man moom dama tàmm di wax ci nit du rafet waaw. da ngay pommade quoi. Hmm? yow ay pommade nga yor di pommade. non xool mu ay pommade bàyyi kaa ñëw waaye <laughs> non Modou Lo champion la boo suñu làmb waree boole rek muy tey muy ëllëg dañuy bëree parce que tey. bon nit dina bëgg dara te yàlla suñu borom du ko dogal. Mm. waaw parce que tey <clears throat> man tey ku ma waxoon dinaa yéeg fii ci làmb am na benn instant mëti woon na trop quoi. waaw kon tey làmb moo demee noonu. bon si ay yàlla waxee dañu war a daje rek maa moom dañuy daje. Mm. jaru mu koy yaa xam ne bu mu koy yaa xam ne na def ndànk rek. bu ñu war a dajale dañuy daje. <laughs> alors en tout cas euh, ba beneen bi euh, je sais que yow ak Lac de Guiers yéen a war daje le 8 avril mm-hmm. et euh, apparemment yaa ngi koy yaa ngi waajal bu baax mm-hmm. mais leneen li ma la bëgg a laaj te loolu aussi mooy peut-être mooy avant mooy dernière partie suñu waxtaan bi mooy sa diggante ak ak Tyson wax nga ne ne li la métti woon na la trop li li daan Tyson. <laughs> <laughs> waaw métti woon na wa trop parce que vraiment defet la wax ne daan naa ci làmb sax métti wu noonu quoi vraiment nit tam da ngay honnête quoi ngay wax li ne ci yow quoi. Mm-hmm. <clears throat> combat boobu ba suite bi amee mm-hmm. sama gars yi nee nañ ma kaa ñu dem combat bi jeex na ma la bëgg naa demee mais mënu ma dem boobu suma tànk yi. waaw ah, man kay gis naa la ci. ok mënu dem quoi nekk na loo xam ne vraiment. <clears throat> keneen daan ko sax moom gënaloon xam nga mais itam aussi lépp da nga koy wékk ci sport parce que mbër mu ndaw moom mooy ñoo bëri ak mbër mm-hmm. la et puis tamit kon nu mu koy waxee tout le bon ci ay wax ñu bëri bon xëy na tamit des fois dina juum ci ay waxam quoi bon. mais waaw moom baal mais tam aussi xol bu naaj sa yor parce que tey man xam nga du benn yoon du yoo xam ne gis nañu toog waxtaan. xam nga dara nii quoi mais vraiment même ci combat bi sax ñu ngi tooñante mais da nga xam ni borom xol bu rafet la. waaw xol rafet na moom waaw saa moom mën naa ko témoin man loolu gis naa ko ci moom quoi xëy na tamit aussi bon noonu la mun a mën a gérer combat am quoi ah, loolu moo ko yokk xaal xam nga loolu moom mooy mooy mooy mooy mooy feeling am xam mu def ko quoi mais man moom nu ma xam ci moom vraiment mm-hmm. bon xol bi rafet na ko mm-hmm. waaw moom moo Bombardier mm-hmm. Bombardier tamit mu miinu ma ko bu baax benn jour lañ mos a am benn coow bu ndaw rek mais xam naa ne borom baax la quoi. léegi yow Tyson euh, euh, kañ ma mujjee woo téléphone. waa gëj nañ diggante nag maag moom quoi gëj diggante waaw que boobu ba léegi ba mu ñëwee après dama fay suma yoruma kii yu bëri quoi suma téléphone kii yëpp dama ko yeneen numéro laa yoraat et puis en plus xam nga dama bëgg suma xel dal bu baax quoi. da nga bëgg a bopp quoi. waaw parce que au moins euh, laa moom xam naa ni euh, comme yow tu es un direct laa defe naa ni euh, doo wëndeelu ndax ce qui est mooy sañoo wax ne yéen ñaar seen seen relation mi ngi naan loolu sañoo ko wax. non tey boo déggee ma lay explique mooy tey kon nu nga ko waxee rek suma mag la. Mm-hmm. sama mag la sama kilifa la tamit aussi quoi xam nga tey bon mënuñu noonoo quoi munuñu noonoo mu am na loo xam ne tey mag moom mënuñu ko def parce que tey bon man dama dul fekk sax nit ci loolu wala may dundee loolu quoi comprendre ma expliqué bon lu mu ci mën wax daal mooy suma mag la suma kilifa la. mais seen relation naay sutul. non jàmm lañ sekk mag moom. kon nu ñu menoon bon je pense que tamit. non mais attends Eumeu Sène bu ma waaxu yéen ñaa nekk ay gaañ. non c'est bu ma ay affaire naaj see bëgg. non du ay effet de gaañ fu ma mag la ah. parce que tey nu mu ma magee na ma 9 ans. wala 8 ans jëm kaw quoi. Mm. kon tey suma mag la nu may xoolee suma mag Pape Ngom noonu laa koy xoolee. amuñu ah, mais moom nee si am ngeen problème ndax moom nee na mere na la parce que yow daawoo def lu mu yëgul te sa affaire ataa bi moom moom clairement ataa la àndal ndax jàpp na ne euh, yow euh, euh, dafa mel dafa da nga am ñeneen ñooy àndal ñeneen ñooy déggal te moom ni nga doxalee ci kii neew neexu ko ndax nee na bul faale ba mu nekk bul faale ba léegi kenn mu seen dégg si ay coow li ngeen def na ngeen régler seen biir et tout mais yow da nga ñëw dem taxaw di wax sa ay di wax ay wax dem na sax ba ne du genre yow naar bu xaw ni ko waxee yu xaw ma xorom bi affaire yooyu <laughs> xaw tu lui as pas en tout cas <laughs> la monnaie de sa pièce euh, donc di genre euh, que nee na euh, hébergé woon na la këram dégg mosu la fóotloo mosu la baleloo xorom sax yu mosoo ko jënd. xam nga donc moo taxaw nag fii janox caméra yi naan non c'est sama mag laa sama. xam nga tey kon mu waxee rek man dama dund ba toll nii soo ko xam. man ba may ñëw bul faale fekk na may bëri ay million ah, waaw bu may ñëw bul faale fekk na mu commencé bëri millions. Mm-hmm. fekk na tam may bëri commencé bëri grand combat dama dund ba toll ni soo ko xam mais aussi tamit xam nga nit ku nekk tamit si da ngay wax rek lu nekk ko nekkoon naa këram bon daana doxaleeg man kon ni rax mag di doxalee ak rakam jàmm lañ mës a sekk maag moom lu rafet lañ mës a sekk maag moom mësuma ko dépassé musuma dépassé tamit. waaw yow waroo jënd xorom yow tamit. non <laughs> wala nga ndox yow tamit. <laughs> lu muy dund ci kër gi. bon jarul mu koy nettali quoi. wala ah mais yow nettali ñu nee na yow nee na nee dafa dàgg. tey lu mu ci kër gi moom xam na man xam naa ko kon je que tey am na leen loo xam ne tey bon gentleman moomu ko quoi am na tey loo xam ne tey du ko mun di wax suma diggante ak moom parce que suma grand la quoi garaawul amul problème. am benn problème. wala yow am million daal di fu sa bopp yooyu xam nga euh, mu héberger ay pendant des années loolu métti mooy pourquoi yow mosoo bale bale kër man loolu loolu moo jaaxal wala sax jënd xorom million yi ngay gagné te moo tax ngay gagné million mais nga war ko jël quelque chose au moins. non bàyyi toog bàyyi loo <laughs> nee nga sa grand la kay mais sa grand boo nee sa nga lal lal bi sax bale tuuti. non ay dugg marché. bàyyi non jàmm moom laa fa nekkee woon xam nga tranquille quoi vraiment. mais na mu nu génn ci presse bi wax euh, def yenn déclaration yi. waaw wax bi xam nga métti na ko quoi que tey. bon daf ma xaar mu woon ci moom loolu quoi waaw dama daf ma daf ma waaw surprise dama def quoi ok xam nga parce mu gisee waxee noonu bon mais tam aussi kon mu la wax rek xam nga. garaawul quoi xam nga nit ku nekk moom xam nga am na loo xam ne ay jaar jaar la quoi man jàppalu ma ko dara soo mag la mënu ma ko jàppal dara tam aussi quoi suma grand la jàmm lañ sekk ñu noonu xam nga cër bu ma ko jox rek laa koy joxaat quoi mais tamit aussi kon nu mu koy waxee rek damay judduwaat xam nga li wees weesu na quoi xam nga li ne sama ginnaaw xam nga du ma sax bëgg du ci wax kon wax bi nii sax xalaatu moon sax ñu mais xam nga yow say question moo de waar quoi surtout xaaruma ko woon quoi mais tey xam nga passé na passé na quoi jàmm lañu sekk mënuñu noonu xam nga et puis nice quoi lu ne sama kanam tam ma jëm a xool xam nga nu ma koy gérer quoi. waaw léegi li ne sa kanam mooy ce qui est bul faale yow pare nga fa lam nga say bagage bari nga sa daara yow ça c'est clair. loolu au moins moom kooku moom c'est clair tey ngaa ñëw sama écrit bu baax. Eh, sa écrit nu <laughs>